tey fi mu nekk nii euh, man je suis euh, un citoyen sénégalais boo xamante ni bokkuma Benno Bokk Yaakaar bokkuma Yewwi je suis tout simplement un sénégalais bu nekk à l'étranger di xool sama askan nu ñuy dundee donc euh, ci loolu ya deux notions mais juridiques yoo xamante ni war nañ ci taxaw la notion de responsabilité et la notion de culpabilité la responsabilité incombe à l'État du Sénégal ñoom ñoo war a éclairer askan wi xam ñan ñooy coupable yi bi nga xamante ni ci ngeen ma poser question muy suñu mbokk mi fi jógee y a quelques jours tey treize minutes ak nuñ ko mën a filmer c'est gravissime dans la mesure où bu fekkee ni teg nañu ay caméra dans une prison war na am ay nit yoo xamante ni à temps réel dañuy surveiller lu am ci biir prison bi donc euh, fi mu nekk nii le procureur de la République pour man c'est indécent di commencer di wax ni am na vidéo treize minutes boo xamante ni franchement comme euh, ni ma dégloo avocat ki fi jógee nekk suñu mbokk sama adduna bépp dafa tukki ndax prison buñ fa tegee ñoo xamante ni reyuñu nit seen position politique képp moo tax ñu dem ci prison bi war nañu am beneen taxawaay boo xamante ni taxawaay bii la donc j'interpelle le président Macky Sall non seulement sur ce cas-là mais sur les quatorze morts du mois de mars où pour l'instant il n'y a aucun coupable qui a été déniché. Et pourtant, et on avait annoncé une enquête. Et c'est gravissime dans une démocratie mais moderne comme le Sénégal. tey fu mu nekk nii waruñu am benn approche politicienne parce qu'il s'agit de la vie d'un homme. une famille qui perd un Sénégal qui perd un enfant mais du Sénégal donc tey fu mu nekk nii toutes les attitudes politiciennes nañ ko sànni ca sën ba xool li nga xamante ni mooy réalité bi. ñu taxaw ci génne dëgg ndax Sénégal mënuñu ko tabax ci ay fen ci ay kàcc je m'excuse d'être comme ça D'accord alors le mot est le même je pense que ñu ñëw ci Diomaye avant ñuy ubbi maintenant par rapport au, au chroniqueur euh, le, le mot est le même indignation euh, par rapport à cette sortie du procureur peut-être ñu bëri ñu ngi doon xaar avant cette sortie du procureur euh, euh, ñu ñu wax waxu autopsie d'abord avant ñuy génnee waxu vidéo wu treize minutes peut-être doon na doon doon na gën a clair ci ci bopp nit ñi mais le fait de se précipiter peut-être pour génnee wax benn vidéo wu treize dafa indi jiixi jaaxa ci xelu askan wi. c'est c'est regrettable parce que on est en de vivre la désacralisation de l'institution du parquet au Sénégal parce que bañ doon euh, maanaam di réviser wat la code de euh, le code de procédure pénal pour permettre à ce que bu amee yenn événement yoo xam ni am na ci réew mi ñu permettre au procureur de la République mu génn wax ak askan wi mais bi ñu daan permettre loolu procureur de la République c'est pour permettre que ñu xam ni procureur dafa nekk procureur de la République boo xam ni. askan bi la fi nekkal société bi la fi nekkal bu génnee di communiquer nit ñi dañuy jàpp li nga xam ne moom la ñuy wax kontaan konte mais c'est déplorable que ces dernières sorties dañu gis ni amuñu sax un procureur de la République on on a un procureur à la solde d'un pouvoir politique en réalité loolu lañ am c'est regrettable et li oui, oui mais sur quoi tu te bases également Bassirou pour wax ne qu'on a un procureur à la solde de bi mooy deuxième sortie man bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma gis sortie yëpp li ko liyee lan la soubassement bi les faits c'est politique parce qu'il y avait eu des manifestations politiques ñu indil ñu d'abord des questions de rebelles pour man booy génn di wax ak askan wi da nga war a wax ak lu lu wóor lu téye loo xam ne ku ko dégg du ko sax banaliser mais bu ngeen defoon tey micro trottoir di laaj askan wi mais dañ naan le procureur bi li muy wax lan la boobu mooy première sortie bi deuxième sortie bi également mort doom am na mort d'homme bi fan la amee hôpital la amee mais c'est à la suite garde à vue le procureur nous pale de vidéo quel soit vidéo bu nu ñu ko mën di jëlee même bu dee vidéo surveillance ku nekk xam ne suñu commissariat yi nga xam ni moom lañ am muy gendarmerie muy police violon yi ngay am c'est en face du chef de post en face du chef de poste c'est-à-dire que poste chef de poste bi day jàkkaarloo agent yi dañuy jàkkaarloo ñi nga xam ne ñoo nekk en garde à mm-hmm. léegi bu fekkee ni ku nekk en garde à nekk violent am ñu koy surveiller ñu ne day jël bopp mbëkkam di ko bëkkal boppam agent yi toog di ko xool même su fekkee ni vidéo surveillance moo koy jël fële loolu non assistance ndax ça à une personne en danger donc je pense que loolu pour man le procureur bu génnee waroon nañoo servir loo xam ne et d'ailleurs pour vous dire que ni l'affaire là est très nébuleuse quelqu'un bu nekk en garde à vue et c'est quoi le règlement numéro cinq de l'UEMOA présence de son avocat mais bien sûr et ce qu'on a ce qu'on a li ñu jàng ci ay avocat am wax ko mooy bañ ko jàppee la gëj a xam li xew ça veut dire que donc c'est fait à dessein ya des choses yoo xam ne ñu ngi ko doon def et ça c'est regrettable je pense que l'institution des police wala gendarmerie dañoo war a républicaine dañu war a agir en fonction de la loi mais ce qu'on est en train de vivre dans ce pays c'est-à-dire qu'on est en train de se glisser de quitter l'état de droit mm-hmm. pour aller vers l'état de police et c'est regrettable te pourtant l'état de police lañu njëkkee ba ñëw état de droit et je pense que cette question la mm-hmm. war na nekk question boo xam ni waratuta war a tuta nekk luy continuer y a toujours des bavures policières yoo xam ni bu du mujj fen mm-hmm. du mujj fenn dañ koy coow ñu wax ko un nag ne doit pas comme ça D'accord. On a l'habitude toujours de nous renvoyer sur la Constitution. nee na allez-y sur l'article 7 de la Constitution. Mmh. La personne humaine est sacrée là-bas. Elle est inviolable. Mmh. L'État a l'obligation de la protéger. respecter et de la protéger. Est-ce que l'État est en train de le faire avec ses citoyens? Au-delà des considérations politiques ñu teg ko fee ñu teg ko fële. Donc je pense que cette affaire-là moo war a nekk déclic boo xamee ne nag dañu war a am ay institutions yiy fonctionner à ci règle de l'art ñuy bañ jël question parce que lii lépp li ko lal lépp politique la. d'accord alors euh, déclic la war a nekk Serigne Saliou euh, euh déclic pour situer les les responsabilités euh, mais boobu ba tey est-ce qu'on a réussi à situer les responsabilités. non les responsabilités ne seront jamais situées tant que ce tant que ce régime est toujours là. Parce que y a eu des précédents. Tout d'abord, je présente mes condoléances à la famille de Mankabo. Mm. Parce que c'est triste aussi de voir euh, ni nga xamante ne moom la génne àdduna. li ci metti nag mooy ñi nga xamante ne dañu nekk ci yenn posture partisane au même jusque devant la mort sax les gens ne sont même pas objectifs pour pour dire la vérité et c'est dommage que loolu moo am tey ci dëkk bi gis nga dee bu xasee ba tegu ku ci nekk da ngay xalaat sa bis ne di nga dee. Mm. xam nga boo ngeen xëccoon li ñuy wax vaar nga xool par Macky Sall ak ñi mu àndaloon quelle était leur posture ba ñoom Ablaye Wade yëngu doon bi bi ñu dee ci ci ci ci ci violon yi ñoom Malick Ba bañ leen reyee quel était leur discours qu'est-ce que ces gens-là n'ont pas dit la justice dans ce pays moom bañ na ko président Macky Sall ju sax. pour wax ne justice bi dafa nërmeelu daf ko bind dans son yoonu yokkute page vingt cinq treize daf ko bind mhm. donc loolu du lu ñuy weddi tey nag bu mbir yi changé on peut dire que oui la justice là il faut la respecter et cetera mais dem moom ça c'était pas le discours gis nga li ci metti moo di gis nga l'actuel procureur de la République moi je crois que il y a intérêt vraiment au de la justice de le changer xam nga tax mhm. parce que chaque fois bu génnee rek c'est pour dire des catastrophes lu mu wax rek c'est c'est catastrophique dans l'histoire de Rebelle dégg ngeen lu mu ci wax vraiment le lendemain moom je crois il a fait la une la risée de tout le monde mm aujourd'hui encore voilà que génnaat na je crois que noppi woon sax ci circonstances yi moo gën mu génn di wax mhm. te xam nga li mu wax lu tax ma ne la c'est doublement faux d'abord mm -hmm. scientifiquement scientifiquement scientifiquement nit mënul taxaw ci violon. mënul taxaw 13 minutes. 13 minutes di mbëkk di mbëkk dara ba jëlee ci comment c'est pas possible. Hmm. da mbëkk soit nga am ci commotion cérébrale mënatoo dem wala nga mbëkk dootoo am doole nga toog soit wala ñu ne pendant 13 minutes yaa ngi raay yaa ngi raay yaa ngi raay yaa ngi raay pendant 13 minutes mais nit mënul avec toute la même force di mbëkk dara di mbëkk dara parce que. gis nga fii dafa sens ba nga xamante ne des fois gisoo mbëri bu ñu leen dóoree rek dañuy daanoo. donc déjà foofu les ah. explications n'étaient pas claires. scientifiquement loolu scientifiquement sax dañ ko dàq ba pare te loolu nit ñi dinañ wane scientifiquement kan loolu mënul nekk dinañ ko génne temps yi. Hmm. deuxièmement juridiquement dafa foote xamul tax. Hmm. parce que moom dafa dugal OPJ yi nga xamante ne ils avaient en charge la sécurité de de de de de de de Mancabou parce que su fekkee ni dafa nekk en garde dafa war a am benn policier ou bien deux policiers de proximité. Mhm. yoo xamante ni dañuy teg seen bët. gis nga en France bu fekkee ne dafa am ku ñu placé garde à vue mu am lenn loo xam ne daf ko dal c'est-à-dire dafa am lu ay daan yoo xam mooy tegu ci kam d'ailleurs même ñun suñu code de procédure pénale sax daf ko dafa prévoir ba demee article cinquante neuf dañu la. su fekkente ne on a constaté des abus yoo xam ne dafa am ci benn ku ñu placé en garde à vue. Mhm. instant boobu. le procureur moom ci boppam dafay saisir le procureur général mu daal di saisir la chambre d'accusation bu ko fexee ñu ubbi benn enquête mhm. donc moom ci wàllu boppam tey dafa dugal ñi nga xamante ne ñoo nekk foofu et en plus xam nga bu ñu wax ne pendant treize minutes am na je ne sais pas dañ ko filmer quelque que soit le mode opératoire mhm. bi nga xam moom lañ ko filmer